ci tournée président Ousmane Sonko bi yéen ñëpp xam ngeen ni gars yi tournée bi président Ousmane Sonko di tournée nii daf leen a tere nelaw Macky Sall nelawatul waaye waxuma la moom rek mais moom yi nga xamante ne ñoo la ci jinaa mooy tubaab yi nelawatuñ su may wax nag de su may wax nag di tudd Macky Sall jàpp leen tubaab yi te Macky Sall moom moom derbee ñuul rek mais xel meeg lépp daa weex. su may wax Macky Sall rek dégg leen tubaab yi jamono yi may wax ak yéen nelawatuñu nelawatuñu parce que gis nañ waa ji ci li mu ne gis nañ gis nañ ni xàll na yoon xàll na ko Ousmane Sonko tournée bii nii macha mooy mooy yoon mooy yoon bu maanaam bu muy bi koy saari bu muy jaar ba dugg ci biir li nga xamante ne moom mooy bale loolu moo leen tere nelaw te gis ngeen aussi que ni ñu ngi koy topp ak gendarmerie fu mu dem ñu dem fa. fu mu dem ñu dem fa mu doon mu doon loo xamante ne ni kenn xamul noo ko expliqué kenn xamul loolu mooy lan ci àdduna parce que ñoom seen projet yëpp yëpp yëpp yëpp depuis début bi ba tey depuis commencement bi Ousmane Sonko tàmbalee woote ba tey ah lii la doon bañal Ousmane Sonko lii ñoom Ousmane Sonko toog ci télé di wax garaawul Ousmane Sonko taal taal réseaux sociaux yi di wax garaawul ñoom Ousmane Sonko dem dem maram dajeeg askan bi moo doon seen problème. li Ousmane Sonko di def moo gën a doy waar meeting moo gën a doy waar euh, xeetu politique boo leen gis ci àdduna xeetu politique bii Ousmane Sonko di def mooy tournée mooy euh, euh, nemmeeku tur bi moo gën a doy waar ci xeetu politique bu ngeen gis. parce que ñu ne communication télé baax na ci da lay communiquer rajo day communiquer yaa ngi dégg téléphone day communiquer mais gis ngeen communication bouche à oreille dara gënu ko garantie dara gënu ko wóor contact bii Ousmane Sonko di am ak askan bi dara gënu ko efficace dara ci communication parce que nag politique communication la. politique du dara lu dul communication yow mun nga am sa programme politique yor sa xel mu màcc yor say idée yor sa loo xam waaye boo ko mënul communiquer ñi nga xamante ni ñoo si war a jot amul njariñ ci wàllu politique nag laay wax amul njariñ waaye même bu fekkee amoo programme amoo ay gis-gis amoo yéene ah di dem di am di maanaam sa communication jàll loolu rek doy te Ousmane Sonko communication bi nga xam moo gën a efficace si xeetu communication yi moom la Ousmane Sonko nekk di communiquer. moo tax nemmeeku tur bi nañu vigilant nañu def yaa ngi dëgg vigilance totale te aussi nañu préparer yeen patriotes yi ñun patriotes lay wax nañ leen préparer te xam ni président Ousmane Sonko gars yi duñ ko bàyyi mu nemmeeku tur si jàmm. xalaatuñu ko fu mu nii dañoo amagul nag pexe wala boog dañoo sësagul fu mu ne nii dañoo amagul pexe wala dañoo sësagul mais ci ci ci songu ko lañ jëm ci songu ko lañu jëm la preuve lii c'est une première dans l'histoire du monde waxuma dans l'histoire du Sénégal de ak Afrique noo une première dans l'histoire du monde homme politique en toute liberte mu jóg di dem ni nemmeeku askanam ñu jël armée di ko intimider di ko topp jël gendarmerie jël police jël renseignements généro jël satellite yëpp di ko topp lii mësul am ci àdduna mësta am waaye nag boo gisee lu tax ba léegi mënuñu koo tere li nga xamante ne moom mooy daal dox bi muy dox nii li tax mënuñu ko ko tere parce que gendarmerie bi nga xamante ne nii c'est-à-dire loolu sax erreur la bu ñu def erreur bu ñu def fu mu ne nii mënatuñoo dellu ginnaaw mais démb bu doon tey duñu ñu yóbbu duñu yónni gendarmerie wala police muy topp Ousmane Sonko bu doon démb doon tey duñ ko def mais fu mu ne nii bu parce que bu ñu wàññoo bu ñu wàññ c'est-à-dire bu ñu delloo ginnaaw rek seen defet la bu ñu delloo ginnaaw rek seen defet la seen defet la mais bu ñu xalaatoon ni Ousmane Sonko c'est-à-dire mënuñu koo tiital c'est-à-dire duñ ko tiital cest à parce que ñoom li leen ci jubloon c'est-à-dire xooxatal ko tiital ko ba mu dalu ginnaaw wala boog nit ñi wax ne waaw Ousmane Sonko jaru ko parce que nag déggoon naa sax yenn baat yu jóg naan waaw Ousmane Sonko comme que gars yi bëgguñu nga dem tur garaawul xam nga yoonu jàmm sorewul bàyyi parce que da ngeen yëgul li yàlla namm ci réew mi ñoom ñuy wax loolu te la plupart sax si ñoom ñu koy wax mooy naafeq yi mooy dëmm yi parce que nag ñoom danoo yor seen i waxkat danoo yor seen i seen i seytaane yoo xamante ni ñu ngi ci biir réew mi buñ demee ba jàq rek ñooñu la ñuy yónni ñoo ñooy génn di wax naan Ousmane ay yoonu jàmm soriwul ak ay jaru ko mën naa bàyyi nemmeeku tur beeg patati patata. mais bu ñu bu ñu xam ne ñoom mënuñoo xoxotal Ousmane Sonko bu ñu teeloon xam ne bu ñu yónnee Ousmane Sonko ay gendarme wala seen nit ñoo ñu yónni si ci plateau télé yi ñuy wax. Ousmane Sonko du leen faale wala du dellu ginnaaw duñ ko def mais jàppoon nañu buñ ñëwee sànni benn ñaar lacrymogène xam nga après nit ñi génn wax Ousmane Sonko daanaan garaawul bàyyil Ousmane Sonko yàlla lay gis si li muy def ñoom loolu moom moo leen ump ñoom ñoom dañoo umpale ni Ousmane Sonko li muy def nii yàlla la ciy gis yàlla kese la ciy gis ak askan bi ginnaaw yàlla askan bi la ciy gis ñoom loolu lañ xamul parce xam nag nit nit xam nag. gis nga nit ku gëmul yàlla saa su ne nit ku gëm yàlla da ko jaaxal gis nga nit bu gëmee yàlla ñi gëmul yàlla dañ ko xoolal da leen di jaaxal parce que ñoom bëgg bi bëgg àdduna yaa ngi dégg topp bi ñu topp seen bakkan bu ñu gisee ku gëm yàlla ah dañ naan kii dof la dof lañ koy jàppee lu mel ni mbir laa leen di wax. loolu loolu feeñ na ci dundu yonent yi yonent yi yëpp yëpp yëpp bi ñuy tàmbale ay dof lañ leen jàppee woon. ay dof lañ leen jàppee woon parce que ñi ngi ko séqaloon ñoom dimension bi yonent yi tolloon ñoom dimension boobu noonu ñu fa woon ñoom àdduna lañ gis àdduna moo leen ñoroon seen bakkan. ci fin bi lañ comprendre à la fin après lañ lañu comprendre mais léegi. comme que bi ñu yónnee seen i gendarme ak seen i police ak seen i dëmm ci ci plateau yi ñuy jéem a dissuader ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko Ousmane Sonko loolu réussir ñu ko fu ne nii xam nañ ne buñ delloo ginnaaw rek mooy mooy see mooy jeex na. xam nañ ko xam nañ ne fu mu ne nii mënatuñoo retirer seen i gendarme mënatuñoo delloo ginnaaw ci mbiru gendarme ak police yi yónnee Ousmane Sonko ñu koy topp. mënut see mënut see delloo ginnaaw li ma lay wax nii nag psychologique la damay bu ñuy dellu ginnaaw moo ñàkk nañu. am na tam ego dañ naan ego saa orgueil maanaam rëy am na réy gi nekk gi ci rax ci seen décision bi ñu jël ñàkk see dellu ginnaaw rëy rax na ci rëy. mee nag xam nañ ni bu ñu delloo ginnaaw rek am nañ gàcce Ousmane Sonko amaan ndam seen kaw moo tax du ñu bàyyi léegi li may waaj a wax ni nag mu ëpp solo. net bi TV. ci affaire bi mooy lan bu ngeen seetloo <clears throat> ñu ngi dem ci. réseaux sociaux yi ak plateau télé yi da nga di sulli li nga xamante ne moom mooy seen arme ultime cest à moom nag lañ fi dese comme gànnaay même bu dee du gànnaay moom nag nañ fi dese mooy meew miiru aju saar bi te dégg ngeen Pape Alé Niang keroog Pape Alé Niang laa fi mujjee def dégg ko mu ne Antoine Diome mu ngi teg ay pression yu doy waar ci kaw juge bi pour mu woo Ousmane Sonko parce que. il faut que nemmeeku tur bi arrêté il faut que nemmeeku tur bi arrêté léegi gendarme yi ñoom li ñu jéem cest à pexe bi nga xamante ne bëggoon nañ ko ci gendarme yi Pape Sané mu ngi koy expliqué ci euh, Walf Fadjri keroog ne preuve par la provocation cest à ñoom jamono ji comme que Adji Sarr bi tamit mënuñu koo bàyyi da nga maam Adji Sarr bi mënuñu koo bàyyi donte dëgërul mais mënuñu koo bàyyi. saa bu ñu koy day fekk ñu am leneen lu gën a dëgërle dëgër dossier Adji Sarr bi te dossier boobu na comme que mun nañ doon wut ci gendarme yi c'est-à-dire ñëw provoqué Ousmane Sonko mu réagir wala patriotes yi ànd ak Ousmane Sonko réagir ñu profité ci ne voilà xam nga indi benn seen genre termes yooyu ñu utiliser rek taxal leen pot daal di créer bu bees mais comme que yàlla def na ba loolu ñu doon wut keroog mbuur amuñu ko. te sénégalais yi gis dégg nañu sénégalais yi addu ci sénégalais yi yaa ngi dégg juger li nga xamante ne mooy situation bi analyser situation bi ba pare jox leen toor ñoom moo tax ñu taxaw mais li ñu def mbuur dañ ko waroon a continuer di def fépp fu Ousmane Sonko dem loolu moo doon projet bi c'est-à-dire ut benn preuve par la provocation provoqué waa Ousmane Sonko ñu réagir rek euh, sur le faux sax mu am moor d'homme parce que loolu sax moom moo nekkoon objectif yaa ngi dégg principal bi. attaqué Ousmane Sonko provoqué ko patriote yi réagir mu am mor dom saye ñu jàpp ci nag keneen dossier boo xamante ne après nag dossier bu dis gann lay doon bu fekkee mor dom dafa am dossier bu dis gann lay doon yàlla yàlla suturaal Ousmane Sonko ba loolu amu fa sénégalais jóg addu ci dal seen kaw parce nag ñu ngi maa ngi félicité ñëpp ñi nga xamante ni jël nañ seen responsabilité par rapport situation bu Kaolack ba am taxaw wax ni nguur gi moo tooñ nekkul ci dëgg parce que loolu am maa ngi félicité ñëpp ñi ko def. looloo tax provocation yi ñu taxaw ci mais continuer nag di ko intimider di ko topp di ko filmer di def yëf ñàkk fayda gendarmerie Sénégal ñàkk fayda xeebu gendarmerie Sénégal wàcce seen bopp léegi nag. bu ngeen seetloo plateau télé jamono yëpp ñu ngi yónni ay nit te gis naa benn booy bu génn xaw ma lan booy benn booy APR bu génn dem toog ci benn plateau télé naan waaw bëgg a wax ci waxu dossier Adji Sarr bii kërëb kërëb mais nag loolu ci kaw lañ koy wax mais ci suuf xam nga lan la ñuy wax waa APR jamono bii nii waa benn bokk bakkaar ci suuf xam nga la ñuy wax ci suuf ay nervi la ñuy préparé Moustapha Diakhaté mooy piloté loolu na leer ñëpp Moustapha Diakhaté mooy piloté nervi yi nga xamante ne ñu ngi leen di préparé te nervi yooyu nag yóbboo ngeen xam ne nag du nekk n'importe qui de te loolu sax moo tax ma def laa fii pour alerter sénégalais yi di leen ñaan aussi ngeen partagé vidéo bi ba gars yi jot si. gars yi nervi yi ñuy préparé pour ñu dem dogalee cortège Ousmane Sonko parce que moor doom lañ soxla soxlaw ñu ñëw arrêté Ousmane Sonko mu bañ a continuer c'est-à-dire mu bañ a continuer bu waree dugg mbuur soxlawul ñu arrêté ko pour mu bañ a dugg soxlawuñu ñëw song ay garde corps xeex ak ñoom soxlawuñu loolu de li ñu soxla moo la dañoo bëgg bakkan daanu bés bu ñu songee Ousmane Sonko mu am bakkan bu rot moo xam ci waa kër Ousmane Sonko yi la moo xam si ñoom nervi yi la lii la ñuy ruumandaat ci suuf ci seen groupe WhatsApp yi moom la ñuy waxtaanee ci seen réunion secrète yi loolu la ñuy waxtaanee loolu laa bëgg ñëpp xam ko Sénégal. parce que nag gars yi il faut ngeen xam ne bakkanu doomu Sénégal yi amul leen njëriñ amul valeur seen i bët su leen di wax nag dañu ngeen di dégg tubaab yi seen ginnaaw su may wax ñoom dégg leen tubaab yi parce que ñoom ay tubaab yu ñuul lañu ñoom tubaab yi lañ fi nekkal. lii mooy programme bi nga xamante mooy projet bi nga xamante ni Moustapha Diakhaté moo koy piloté parce que nag Moustapha Diakhaté même rôle bi joué na ko. ci événement mars deux mille vingt et un yi même bi te bu ngeen déggee Moustapha Diakhaté da ngeen di dégg Amadou Ba premier ministre. su ngeen déggee Moustapha Diakhaté da ngeen di dégg Amadou Ba premier ministre ndax tey jii Amadou Ba bu dee c'est-à-dire bu dee buur la Amadou nu mu tudd Moustapha Diakhaté mooy major domam Moustapha Diakhaté moom mooy. bëkk néegam bu dee sëriñ la Amadou Ba Moustapha Diakhaté mooy bëkk néegam Amadou Ba lépp lu ñuul lu muy dox Moustapha Diakhaté moo koy piloté jamono ji nag ci loolu la ñu nekk nervi yi nga xamante ne moom la ñuy préparé nekkul booy mbër yi ngeen doon gis mois de mars 2021 bi de non nekkul ay mbër ñii ay mercenaires de service lañu ay mercenaires de profession lañu. ay mercenaires de profession la ñuy préparé comme nervi du ma ci génne sax ay éléments yoo xamante ne mun nañ leen jëlee ci police bi ñi wala ñu jëlee leen ci gendarmerie bi mun nañ mun nañ sax doon ñooñu. parce que bu ngeen déggee yen yéen xam nga ndax dégg ngeen ko mais gendarmerie bi am na mutinerie secrète bu am ci biir gendarmerie bi bu Sénégal gendarmerie bi am na mutinerie secrète bu fa am c'est-à-dire dafa am gendarme yi dañ leen infiltrer dañoo jëli ay mercenaires ñëw dugal leen ci biir gendarmerie bi. ba loolu am na ay gendarme ñu koy dénoncé si biir gendarme yi ñu ngi koy dénoncé foofu ci biir dañ koy nëbb nag mercenaires yooyu ñu jël dugal leen ci biir gendarmerie bi ba gendarme yi bañ ne mercenaires yooyu duñu leen rax même mercenaires yooyu ñoom lañ nar a jël transformé leen ay nervi ñoom ñoo war a dem attaqué cortège Ousmane Sonko bi nga xamante ne nii à tous les coups mën na am mën na aboutir par un mort d'homme parce que ñoom mort d'homme boobu lañ soxla mu takk ci Ousmane Sonko. patriotes yi lii laa bëgg ngeen partagé ko ba sénégalais yëpp jot si. jamono yi ñu nii ay sacrifice humain pare nañu pour def ko. donte def nañ ko ba pare parce que quatorze moore bu ngeen déggee quatorze waxatuñ si parce que quatorze moore ñoom xam nañ bu baax a baax a baax a baax ni sénégalais xam nañ li ñu def ci li jëm ci quatorze yooyu. ak liir yi nga xamante ne lakk nañu ba jeex d'après ñoom lu ñu wax ah ci hôpital Tivaouane bi kenn gisul liir fu liir yi jaar fuñ leen yóbbu lan lañ lañ def. naka la naka la ci diiru trois minutes ay liir lakk ci ba lu mat trois minutes loolu mënta nekk. ci diiru 3 minutes ak quelques secondes ay liir lu mat 17 liir lakk ba jeex tekk ci 3 minutes ak quelques secondes mënta nekk dañu wax fu ñu dugal liir yi. pare nañ pour faat ay doomu senegal pour am lu ñu bëgg pour arrêter Ousmane Sonko lii mooy projet jamono bii nga xamante ne nii nañ toll moo nekk actualité. parce que loolu rek rek rek rek kese lañ mën a arrêté nemmeeku tur Ousmane Sonko bi kese dañ ko mën a arrêté mordom kese. Net Bi TV. lu mel ni midi laa leen di wax tournée Ousmane Sonko bi nga xamante ne ni moo leen tere nelaw moo nara a daaneel seen nguur tournée bii mooy daaneel seen nguur ñoom xam nañ ko leer na leen Macky Sall boo gisee nanguwul kenn ku def tournée parce que moom xam na ni tournée moo ko may nguur tey. li Ousmane Sonko nekk di def nii Macky Sall xam na ni looloo ko may nguur gi xam na ko xam na ko très bien Macky Sall parce que même bu ngeen seetloo la preuve mooy Macky Sall perte na capital yëpp ba mu des àll bi ville yëpp la perte ci élection yi si topp yëpp ville yëpp la perte ba mu des àll bi lan moo tax pour yéen Macky Sall teg loxoom ci àll bi parce que dafa def tournée dafa dugg ci àll bi waa àll bi ñoom amuñu. yaa ngi dëgg amuñu média bay mën a suivre actualité wala yooyu noonu ñoom ki nga xamante ne moo ñëw si ñoom seet si leen ñoom kooku la ñu xam. parce que nag àll bi ñoom ba tey ñu ngi dese yenn yi nga xamante ne moom mooy valeur mooy dignité mooy ay yaa ngi dëgg reconnaissance àll bi ñu ngi koy dese ba tey valeur yu bi ñoom ñoo ko dese waa Dakar ñoo amatul valeur ñoom ñoo amatul reconnaissance amatuñ dignité mais waa àll bi ñoom valeur yi nga xamante ne ñu ngi koy perte valeur yooyu ñoom yeg maanaam pertement boobu yegg seegul si ñoom looloo tax Macky Sall ba tey ji nii élection bu amee dina perte fépp ba mu des àll bi parce que àll bi moom ñoom moom lañ gis moom moo ñëw ci ñoom. kon Macky Sall xam na ni tournée bi Ousmane Sonko di def moo koy jox réew mi bu yeggee mu Macky Sall xam na ko parce que nag Ousmane ko fa muy jaar noonu te Macky Sall jaaroon fa ba pare wax fa loo xamante ne yaa ngi dégg digge fa ay digge yoo xamante ni defu ko Ousmane Sonko bu fa demee bu leen ne kii de fenkat la dañ koy gëm parce que Macky Sall bi mu fa jaaree ba tey jaaraatu fa te lam leen dugal yëpp dafa ko fa Ousmane Sonko bu demee da koy dindi facilement Macky Sall xam na loolu. Macky Sall xam na loolu moo tax nag turne Ousmane Sonko bii il faut que mu dakkal ko mais ci benn façon kese kese kese la ko mën a dakkalee xam ngeen mooy lan du xeex du jël gendarmerie dem di ko topp da nga maam. du du du du du voilà jënd ay nitam wala yu demee noonu. non non non Macky Sall benn façon kese la mën a arrêté tournée Ousmane Sonko bii mooy mu provoqué ko ko ba mordom am ci te mordom boobu noonu gendarmerie mënu ko parce que gendarmerie yi xam nañu Sénégalais yi ils les ont à l'œil xam nañ ko. te d'ailleurs ci biir gendarmerie bi ci boppam dafa yàgg am scission dafa yàgg am ay gendarme yoo xamante ne nii ay patriotes lañ mosuñoo d'accord déjà ci fal bi mu fal Moussa fal gendarme yooyu mosuñu see d'accord. moo tax loolu mënu ko amee feneen fudul yónnee ay nervi te ci loolu la ñuy préparé ñu ngi koy togg ci seen i groupe whatsapp ñu ngi koy togg ci seen i réunion secrète ñu ngi koy toggu nervi yooyu te li tax nag ñu war a alerter ñëpp waxuma Ousmane Sonko rek waxuma ay garde corps am rek waxuma sécurité am rek Sénégal yëpp parce que am na do bakkanu doomu sénégalais yu ñu nar a sacrifié parce que nervi yi di ñëw prochain nervi yi di ñëw duñ doon ay mbër de non non non duñ doon ay mbër yi nekk ci ci mbedd bi yaa ngi dégg di booster ay torsu yaa ngi dégg di réel ay taat dégg di yor ay ay batu golf nervi yii di war a ñëw ay gànnaay yu leer ay gànnaay yu wóor la ñuy yor parce que il faut mu am mordom il faut mu am mordom loolu rek moo mën a dakkal tournée Ousmane Sonko bi ñuy def parce que gis nañ gis nañ ne sénégalais ñu ngi xaar Ousmane Sonko xam nañ ko léegi leer na leen. Ousmane Sonko dëkk yi mu demagul sax ñu ngi koy xaar waaw li lañ bëggoon partagé ak yéen di leen ñaan ngeen partagé vidéo bi na ci Sénégalais yëpp jot te ñu préparé taxaw temm patriote yi dañ taxaw temm parce que wax naa ko di nga deux mille fii ak deux mille dina mel ni fukki at fii ak deux mille vingt dina mel ni fukki at. dina mel ni fukki dina tàng trop trop trop si ñun lu ñu mën ak lu ñu mënul lépp dinañ ko def lu ñu mën ak lu ñu mënul yépp dinañ ko def dañ leen jóg taxaw gars yi te live yi dañ koy partagé ba muy yegg ci àll bi na yegg fépp gars xamee ko noonu fépp Ousmane Sonko war a dem ah gars yi jiitu leen ko fa wax askan ya fa nekk préparer terrain bi xamal leen ni bugguñu coow bu kenn ciblé bu kenn yuuxu bu kenn tàccu sax na ñëpp toog rek waa ji ñëw taxaw wax li muy wax waxtaan ak ñoom mu jeex ku ne dem. te aussi tamit Ousmane Sonko bu fekkee mën na di euh, mën na di gàttal li nga xamante ne moom mooy cest à waxtaan yi wala boog mu bañ ko guddee mu bañ a guddee Ousmane Sonko sur le faux 17 wala boog plus tard 18 na arrêté tournée bi quoi parce que na gars yi lu muy gën a lëndëm rek moo leen di gën a arrangé lu muy gën a lëndëm rek mu muy gën a muy cest à ñu gën a am alibi lu muy gën a lëndëmee rek muy gën a am alibi Ousmane Sonko bu mu nee plus tard 18 heures na arrêté waxtaan yi mu dem région otolem quoi parce que nag moom moo ko wax. moom moo ne xeex bi ci xel la njëkkee ci xel la moom Ousmane Sonko moom moo ñu ko wax. waaw ah, kon gars yi bu fekkee ñoom waaw bu waru leen may daal waru leen may dara nu muy gën a lëndamee rek ñoom seen i plan di gën a cest di gën a mën a réussir en fait kon bu mu leen may loolu 18 heures plus tard Ousmane Sonko bu mu nee arrêté tournée bi 18 fu mu ko mën a fekk na ko fa arrêté parce que nag Sénégal je pense que 18 foofu day leer bokkul contrairement à fii fi moom 16 heures rek mu commencé lëndëm mais 18 heures je pense que 18 heures ba tey Sénégal day leer ko 18 heures Ousmane Sonko na arrêté li nga xamante ne moom mooy tournée yi mu dem waajali timis fa mu war a fanaan mu waajali fa timis na ko fa timis fekk lool loolu la quoi na ko fa timis fekk maa ngi leen di jaajëfal yéen ñëpp di leen jox dig daje ba ci jamono yi incha allah. Net Bi TV. ngeen jëf.